ñaari question ak laa ñëw ci Lac de ñu tëj jóge ci loolu euh, benn bi mooy euh, ni ngeen ko bëreloowee ak ni ko sénégalais yi di bàkkee Lac de day niil du bëree day daw day rasu boobu mooy première question bi est-ce que du leen tee ngeen am combat deuxième bi mooy damaa dégg léegi ngay wax euh, ñi dagg ñaari junni ak ñetti junni damaa dégg kii ak Pape mu ne mercredi bi comme tey la Lac de di jël jot reliquat bés bu jotee reliquat am na na amateur wala supporter mi rang këram mu delloo leen kenn ku ci nekk paasam ba mu paasoon ndax def fa daal. sa première question la woon. Euh, nit ñi bàkkee la guerre dafay niil dafay rasu du bëri est-ce que loolu du du du ko téye ba amaat combat am xaw a jafe. waaw la guerre dañ ko catu. dañ ko catu hmm? du bëree boobu day arrière. ba combat am egg cat loolu moo ko jàpp ba loxo bi dans quatre jour mu dam ma ndax loxo Lac de ma ngi demee ci contre te baaroomu loxo du tane loxo bi fii la dam mu mu ma ci entraînement ma boo xam ni dafa yaakaar ni dafa yëngu muy neew yi ñu di commencé ak li Gaston Mbengue daj bi muy risquer di jox avance Eumeu Sène di risqué di ko jox Lac de boobu ñu ngi ci biir Covid bi bii kuloo la ñu waxoon yàlla dogal na yàlla mi dërëtawul ñu ñu teggis yi xewoon mu am mille sens Gaston depuis mu commencé tëgg làmb bisu keroogam bi bu ko amee barewul ñu ngi koy yéene mu am ci un milliard de francs mais ma lay wax rek ni Lac de Guiers ko jàpp ba loxo bi ma mu bañ a yàq làmb ji nëbb gaañu gaañu bi ñëw gere combat bi gañe ko kon nag di fait que Modou gañe woon na ko ci décision arbitre tey mu gëm gañe Eumeu Sène ci décision arbitre ñu ngi jégalu amateur yëpp ci ni mu bëree. te xam ni prochain combat décidé nañu ñun ñii waa Guédiawaye xool Lac de Guiers man de gisuma lu mu manqué ndax koo xam ne bi nga duggee ci làmb ba léegi dangay ngay daan te kenn mosulaa daan benn yoon nga mas a daanu ngay xëccoo roi des arènes actuellement nii dégg na li amateurs yi wax fiñ ko bàkk dañ koy jéem a yóbbuwaat ci beneen école yokkaat xam-xam bi ba bu ëllëgee rapidité bi xeetu bëre bi ñu jéem ko yokk ndax ndax njàng du non non dañ ko yóbbu ci beneen école nun ñooy xool li nga xam ne xalaat noonu manqué na ko ñu dolli ko ci moom Eumeu Sène am na lu mu manqué Balla Gaye ba tey mu ngi jàng mokkalul kon ñoom ñëpp dañ leen di continuer di jàngal ba bu ñuy bàyyi bëre ba nga laaj ma leneen